kon ñun kooku ñu di liggéeyal am seen doom jël ko ànd ak moom jox ko directeur général jox ko ministre des collectivités territoriales jox ko ministre directeur de cabinet jox ko ministre bi nga xam ne léegi moom mooy forces armées dama jàpp ne Sénégal gis na boppam ci nguuru président Macky Sall kon nag le 24 mars dañuy delloo njukkal président Macky Sall ci li mu defal caajaay ak li mu defal doomu caajaay yi maa ngi dégg nag candidat yu bari dañuy ñëw ne ne caajaay la dëkk boo leen ne woon ci loxo ne leen yóbbu leen ma Dakar gi duñ ko xam ne leen téye ci loxo ne leen yóbbu man ca lycée caajaay bi dañuy jowaat ne lycée bi ak collège bi nekk fële xamuñu ñu am dëj xamuñu ñu am ngénte xamuñu am ceet xamuñu ko feebar xamuñu ordonnance joxewuñu sukkaru koor ay ati ati ati at bëgg a ñëw tey nag ne ñoom ñoo dëkk Sénégal ñoo dëkk Caajaay wotal leen xamoo uguya xamoo dalasi xamoo leneen beneen monnaie bu dul CFA xamoo Naira monnaie boobu uguya moom mooy monnaie Mauritanie mooy mooy jëndu xaalisu Mauritanie mosoo koo gis xaalisu Gambie ji nga xam ne moo ñu gën a jege mosoo koo gis parce que seen xaalis du dara CFA bi foo dem mën nga échanger kon nañ leen programme, xam programme Sénégal xamuñu liy doxal réew jox leen réew la la jeunesse encore une fois je vous appelle à une reprise de conscience à une conscience citoyenne ngeen xam pour y gis ngeen ni le nombre de lycées ñu le nombre d'universités ñu le nombre kon nag wax dëgg yàlla liggéey nañu dëkk bi yokk centre de formation professionnelle yokk bourse yi wàññi ki yi te loolu la ñu mën kon dañu góorgóorlu bu baax la jeunesse je vous engage à à la rencontre la jeunesse pour les conscientiser sur le choix que ce soit un choix d'avenir un choix de progrès un choix réaliste bu leen jël ay choix rek parce que da nekk chômeur nga ne noo man liggéeyuma damay sanctionné déedéet boo ko defee di nga def musiba il faut mu am camion boo xam ne nii dañu koy jëlee jam ñaajo ko buur pour andi matériel bi lim ma wax rek daf ma ne jox ma numéro ki nga xam ne moo nekk ci dépôt bi dinaa ko jox chauffeur ak essence ak oto mu dem jëli matériel bi andil la ko nga bëgg kon Abdou maa ngi lay sant maa lay ñaan yàlla yàlla yokk sa fan yokk sa wér. bi jotee candidat bi nga xam ne mooy kàndidaa bu wóor bi mooy candidat bu baax bi mooy candidat bu yaru bi candidat bu am xam ràññee xam Sénégal dafay ñëw caajaay seet si leen dama bëgg nag bu mi ngi ba waa Caajaay yëpp génn góor jigéen mag ak ndaw ñu tàrtu ko on a yow yaay le du président Macky Sall yow yaay le choix du fils de Caajaay yow yaay le choix de Caajaay yow yaay le choix pour le progrès et la république loolu maa ci woo Abaruba, Abaruba.